alaikum. Maaleykum salaam. Adja Diallo. yeah. comment va-t-elle. je vais très très bien. mais namoon naa la. maa la gën a namoon. je pense aussi je pense aussi téléspectateurs yi nañ la aussi. ah dañ la gëj a gis. waaw di ci rajo bi rek. waaw ah, mais nga ñëw nii. mais on est de retour. voilà ay uh -huh. a a kenn du wax lépp. Mm. on est samedi soir. oui on est sur la. 2STV la télévision autrement. donc ñu dem nànk. parti ah. en tout cas mbégte loolu la monsieur Rakhou il est le faut. <laughs> merci Adja. merci beaucoup. léegi Rakhou dama bëgg a xam guddi gi tey nan lay demee. guddi gi nu muy demee mooy euh, on est sous les projecteurs. Mm-hmm. suñu première édition. oui donc on va groupe mythique. Mm-hmm. kenn du leen présenter sur le plan national ak sur le plan international. international effectivement. donc Adja. Mm -hmm. on reçoit Daara J Family. waaw. waaye Daara J Family. nga war a def bul xaar defal amul yàggal say donc Fada. jaajëf waay plaisir ah. tous les projecteurs. merci beaucoup Rafa. di suñu première édition. on est là ah. waaw. toujours lool. en tout cas le plateau plateau bi moom nice la quoi. <laughs> mais est-ce que jaaruñu fi woon sax dans le passé. oui oui. parce que ngeen def sur les projecteurs. Euh, oui je crois que jotoon nañu fi jaar. si si si. Euh, et puis kër gi suñu kër la. waaw mm. ah, donc. Euh, on est, on est très, très, très heureux de revenir sous, à, l'émission sous les projecteurs. Franchement, c'est un plaisir. Bah c'est partagé, Adia. Oui. c'est vraiment aussi un réel plaisir parce que Dara dit qu'elle nous présenter Sénégalais. Ça, c'est vrai, c'est Central le nec. Voilà, mm. ils ont du talent, ils ont du respect aussi. Donc, ce qu'on va faire, euh, j'ai un élément à vous